Euh, salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di baax di leen ziar tey nag benn vidéo lañ bëgg di ko waxal authentification à deux en deux étapes wala en deux facteurs ci yenn réseaux sociaux yi yenn réseaux sociaux yi su fekkee TikTok la wala beneen daal boo xam ne si nit a nga ca euh, dañuy xóotal sécurité bi ci yenn anam yi pour bëgg nga euh, xóotal sa sécurité ci mm, ci ci plateforme boobu ba kenn du mën a pirate sa sa compte. parce que am ay nangami abonné jékki-jékki rek ñu piraat la nekkatoo fa loolu métti na trop léegi nag nga jaar noo xam si balaa kenn connecté wu dina jaar ci sa numéro téléphone foofu lañ bëgg a dig muy authentification en deux facteur loolu yomb na da ngay ñëw ci trois points yi comme ni nga koy defee rek boo dikkee trois points yi nga ñëw fii sécurité boo dikkee sécurité nga ñëw fii mais bon da ngay njëkk fii quoi fii moom danga koy activer da ngay ñëw bañ examiner compte bi ba pare bañ examiner compte bi ba gisoo mi ngi voilà ok léegi pare na léegi nag nga ñëw fii ci authentification ji en deux étapes nga kii mu ne la message biñ lay envoyé. su ngeen laay de sa sa boo ci tànn rek baax moo koseel fi ñu la ko mën a envoyé fépp. tànn naa email bi comme ñëw envoyé ma ci code bi nga xam ni mooy code de validation bi. comme sama tànnoon SMS eh, bi tamit waaye email bi laa tànn léegi ci eh, sama email lañ ma koy envoyé xaaral ma xooli ko envoyé nañ ma ko

cent vérification en deux étapes bi activé na léegi ku bëgg a dugg sa compte il faut mu jaare ci sa numéro téléphone bi walla mu jaare ci sa euh, adresse email bi email bi wala mu jaare ci mot de bi trois yi moom la nit mën a jaare ba dugg ci sa compte su nit man ma ne ba war fee dugg tamit dinañ ko waaye benn ci ñaar yi benn SMS boo xam ne si code lay àndal boo xam ne si li fekk dugalu ko euh, application bi du ubbeeku aywa yaakaar naa war na leer loolu moo nekk euh, vidéo bi su ngeen jaajëfal bu baax asalaamaaleykum ba beneen vidéo